mbaar yi nga xamante ni moom la def diggante daaray kaamil ak jullikaay it yi nekk ci penku jumaa ji fu waay toll ci dëkk bi di ko séen ñu boole kook ay màndarga yu ràññiku yuy leeral nan la bis bi amee ak fànn yi nga xamante ni moom lañ ciy waxtaane ñeenti fan ci weeru safar ginnaaw boo xamante ni barab bi koy liggéey muy abri structure yépp taxaw na fi mu nii mboolem ñi nga xam ne ñoo fa féete ñi ngi rangale panneau yi ak tableau yi jublu ci yi nga xamante ni moom lañ ci war a wékk li nga xam ni itam moom la war a àndal muy xamtu yi di ay téere di ay fànn fàttaliku yoo xam ne kuy dem dana ko mën a yóbbaale lu ci bari liggéey nañ ko ba mu àgg mu doon ci taxawaayu jëwriñu daara isbu tarxiya di sëriñ Atou Diagne nga xam ne moo yor wàllu commissaire ci exposition bi ànd ak ñi nga xamante ni ñooy chef de pavillon yi ak ñi nga xamante ni ñoo jiite yeneen fànn liggéey yëpp tey jii nag ci ñeenti fànn ci weeru safar am na ay nemmiku yoo xamante ni tàmbali na faa am di ay kilifa yoo xamante ni dikk nañu di siyaar si ak di rafetlu liggéey bi di gën a dollee ñaax ak soññee mbooloo mi nga xamante ni ñoo féeri ci wàllu liggéey bi ràññee nañu ci bisub ñeenti fan ci safar sëriñ Moustapha Bousso mi nga xamante ni mooy xalifa sëriñ omor buso mu dikkoon ànd ak délégation bu takku bàyyi ko Gédé ñëw nemmiku ci liggéey bi bi mu ñëwee itam jëwriñu daare ji teeru na ko ànd ak moom won ko lenn ci fi nga xamante ni fa lañu ñu ci liggéey yi mu wone mbégteem ak ñaanam naka noonu itam sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mahamadul Bachir dikk na fa siyaar si barab bi nemmiku liggéey bi soññ mboolem dongo yi nga xam ne ñoo fa nekk wone itam mbégteem lool ci liggéey bi nga xam ni lu yaatal mbirum Serigne Touba ak dolliku ak xamle ci fànn yépp sëriñ Moustapha Diatara mi nga xamante ni mooy conservateur bibliothèque Cheikhul Khadim te bokk ci ñi nga xamante ni am na taxawaay yu ràññeeku yuñ ci war a am ci bis ba moom itam fekkee woon na jataay boobu loolu nag dafa ànd ak bagage yi nga xamante ni moom la ñu fàggu mu jëm ci exposition bi tàmbali ñëw képp koo séen ma nga am ci liggéey boo xamante ni fa la féete ngir balaa ñoo yegg ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier yi nga xamante ni ci lañu war a ubbi liggéey bi lépp mën a yemb ba fépp fu waay jóge su ñëwee mën a fekkee liggéey boobu ñuy fàttali rek ne lu bokkul ak barab bi nga xamante ni ci la ñuy defee exposition bi te mu toll ci ñaari junni carré am na beneen barab bu ñu fàgg ñu di ko wax auditorium mu toll ci junni mètre di barabu dajeekaay barabu waxtaanukaay barabu saafonte ak sottante xalaat yoo xam ne bu njëggee ci bis bi dana daral ay boroom xam-xam yu yaatu kon fii mooy fi nga xam ni fa lañu ñu tàmbaleegum toll fa ci liggéey bi ci ñeenti fan ci weeru safar mboolem nag li nga xam ni moo fay dox des na ko mën a gis ci situ Hizbut Tarqiyyah 3w point htcom point sn rawatina ci site bi nga xam ni dañu ko def jagleel ko exposition bi muy 3w point exposition màggal 2010 point com